Madame la ministre, chers collaborateurs des ministres, chers collègues, Madame la ministre, permettez-moi ma boole ci samay nuyoo rek say collaborateur ku ci mel ni ñaaña kànku ak ñi ci des ma dëxañ ko euh, ndax yëf yi mu ngi bëgg a yàgg te wax dëgg yàlla loo bañ bañ lëg nangul ko mën a dawam jàmbaar nga ci li ma gis te mën koo wax kon jigéen ñi boo leen bootee dafa am foo war a taxaw ak noo war a taxawee xanaa ñu ñaax la nga yokk taxawaay bi monsieur le ministre ma lay interpeller ci loo xamante ne diaspora bi ñoo tax ma di ko wax muy autorisation parentale monsieur le ministre wala madame la ministre comme pa bi nee na académie bi nangu na ko euh, diaspora bi am nañ problème ci autorisation parentale madame la ministre refus de paternité nekk na loo xamante ne ci Sénégal bala ñoo sax criminaliser viol loolu lan waroon a njëkk a criminaliser ndax madame la ministre jigéen ku mu jiiñ yow la jigéen ku mu jiiñ yow la mbaa laale nga ci kon nga bañal jigéen doomam mu lànk bañ ni d'accorduma yaay jaay njëkk a bañ sax loolu nag solidarité féminine bi nuy wax war na cee bokk ndax dangay dem laaxaani yaay ja lànk ni yaa ah, man de sama doom juru ko moo yow yaa demam yaa fekke gaa yi fu ne lañ koy defee yaay am leen fulla am fayda bañ a miimal seeni doom ndax yéen a ngi lor beneen jigéen boo xamante ne dafa subir te jigéen yàgg na ci subir madame la ministre madame la ministre lii waa Italie dañ koy dund dangay ngay sëy ak nit mu nekk ak moom war a am passeport góor ga daw bàyyi la fa boo demee ca consulat ba consul ba ni la demal nga indi papa ji dafa war a signé ngay doog a am passeport nga ñëw fa pour immigré war a liggéey sa doom tere la mën a liggéey ndax liir la sa yaay woo ca Sénégal ni la mën naa la koo bootal doom ji du yëg si mukk ndax papa ja day daw ndax bañ na soxor na iñaane na nga am au moins mille cinq cent euros par weer pour faj say soxla madame la ministre jàppal ci lii ndax lii bu ñu ko réussiree réussir nga ministère bi jarut ngay liggéey xëyal suba teel rek yow toog dimbalil nit ñi ngir yàlla ci li nga xamante ne mooy autorisation parental jigéen ñi immigré yi lañ koy waxal waaye jigéen ñi ci Sénégal gii lañ koy waxal ndax ëmbal bi bañ moom fii la xew bañ a nangu doom moom fii la xew ndax fee moom boo ko fa defee bu soobee yàlla tubaab bee lay fajal boppam te loolu mbir la moo xam ne dama ko indaale madame la ministre ma indaale souffrance boo xamante ne sunu moroomu jigéen yaa ngi koy dund. muy promotion canapé metti lool naqari lool ñu war cee woote solidarité féminine ndax fii parfois la mérite na paie plus madame la ministre mbir a ngi moo xamante ne fépp lañ koy dund nag amul exception moom daal bu nu la laajee nga bañ loo yore nu xañ la ko nangu ko jox ko sa moroom te am na ñoo xamante ni nag ngor gañ doon dund ñu ngi koy dund ba tey na namunu dara li ñuy wax naan jéeg du ko wax dan la koy waxal waaye namunu dara. kon laaj bi nuy bañ ñu di nu xañ suñuy devoir yow bokk nga ci ñi ko war a wax taximaan nag du wax ki nekk ci hôpital du wax ki nga xamante ni mooy docteur du li ndax am na los bu nu ko waxoon dëkk bi lakk te jarut wax kon madame la ministre waxal ci jigéen ñii ñuy toroxal ndax seeni poste ñi ngi koy nangu di ko joxe te mbir la sëb la la ko bënn nga ca biir dee ko lijjanti jërëjëf yaay sunu tiitar soo gisee tey ne assemblée bi jekkee jigéen ñi teel nañoo ñëw teel nañoo sañse gàttandu la lii rek lan yaakaar ci yow te nit ñi dama doon wax naan jigéen dafa solvable bu lebee day fay jigéen ñi dee leen leb di fay ndax ñu mën a kaas ci ministre des finances mu yokkal ñu li nga xamante ne moom mooy crédit yi ndax ñépp mën a am daanu dajul suuf waaye ñépp mën a am man amuma laajuma waaye xam naa ni dimbali ñi ci biir réew ak ñi nga xamante ne ñoo nekk ci fond du Sénégal baax na yaa ngi ciy góorgóorlu jërëjëf madame la ministre merci. monsieur président madame la ministre de la femme de la famille du genre et la et de la protection des enfants monsieur le ministre du travail et des relations avec les assemblées du travail aussi mesdames messieurs les collaborateurs des ministres mais très chers collègues Madame la ministre, je voudrais d'abord vous féliciter, vous féliciter de votre reconduction à la tête de ce département qui est très important. La femme, la famille, le genre et la protection des enfants. Et vous avez bénéficié encore de la confiance du chef de l'État, la dénote de votre quand capacité à bien manager les choses à la de ce département. Je voudrais aussi saluer tous vos collaborateurs, les hommes comme les femmes, comme on a parlé de genre, en commençant par le directeur de cabinet, le doyen Siré, qui est même une icône au niveau de ce département et toutes les autres femmes, les Kankou et les autres directeurs. Madame la ministre, je voudrais juste faire un plaidoyer au niveau quand même euh, de vos financements. Parce que quand même, on a, on a dit genre, et le genre, c'est pas quand même, euh, c'est hommes et femmes. Et vos financements ne s'adressent qu'aux femmes. Donc je voudrais vraiment vous demander pourquoi souvent aussi, vous ne, il faut regarder un peu de l'autre côté parce que chaque fois quand on voit le, Madame le ministre se déplacer, on voit, d'ailleurs vous avez même vu aujourd'hui, les femmes se sont, sont venues tôt, ce qui n'est pas d'habitude euh, le cas. Bien que... Non, ils viennent tous les jours, mais pas très tôt. Ils se sont très bien habillés, ils très bien habillés, vous les avez vus, parce qu'il y a le ministre de la Femme. Donc vraiment, comme on a dit genre, Madame le ministre, il faut aussi regarder du côté aussi des hommes. Parce que même ici à l'Assemblée nationale, on dit parité. Ce qui manquait un peu, c'était au niveau du groupe parlementaire et ils se sont battus jusqu'à avoir une vice-présidente. Donc comme on a dit genre, il faut nous dire waaw li ngay joxe nag yo tamit boo joxee góor jigéen joxal góor loolu aussi c'est important mais aussi euh, dire que nous avons suivi madame la ministre vos déplacements nous avons suivi le travail que vous faites pour le financement des femmes ce qui est important c'est que vous êtes un ministre qui écoute toutes les couches de la population et ça c'est important parce que quand on est ministre de la femme on a besoin de rencontrer les femmes mais aussi toute obédience confondue muy pouvoir opposition société civile képp koo xam ne jigéen la nekk ci Sénégal war nga ko mën a dégg te gis nañ ne quand vous vous au niveau des localité dañuy gis ne da ngay dajale ñëpp boole ñëpp loolu nag ñu la ci gën a ñaar parce que jigéen dafa doon loo xamante ni dafa sacré te fépp fu mu mën a féete mu nekk pouvoir comme opposition li ko gën a intéressé mooy la société mooy la famille mooy le devenir des enfants et aujourd'hui même immigration clandestine bi nga xamante ni ñu ngi koy wax war nga am yow sa département liggéey bu am solo boo xamante ni war na ko ci mën a def parce que nag jigéen ñi ñoo war a gën a nekk sur le terrain te ñoom aussi ñoom ñoo gën a am écoute xale yi parce que tey jii keroog maa ngi koy wax je suis parti ci benn école boo xam ne sama xale yi fa lañ nekk mu am réunion des parents d'élèves sur 40 parents ñaari góor rek a fa nekk xam nga loolu gàcce loolu li muy waree mooy jigéen ñi ñoo gën a am quand même Pastef ci xale yi parce que góor ñi moom dañuy yaakaar ne suñu fayee rek euh, euh, fin du mois ñoom seen jaan wàcc na alors que nag euh, doom ñaara koy def jigéen ak góor donc ku ci nekk am nga responsabilité mais seen responsabilité jigéen ji dafa am solo am solo boo xamante nii moo tax ma jàpp ne loolu sa département war nañ ci gën a am lu ñu ci liggéey mais loolu nag aussi dafa ànd ak ay moyens monsieur le directeur général du budget je pense que le ministère des finances devrait davantage accompagner ce ministère l'accompagner pour que mu am ay moyens yu am solo doy pour que mu mën a mën a liggéey am ay résultats parce que su fekkee da am ay résultat da bëgg ay résultat te amoo ay moyens yoo xamante ni dina tax nga atteindre ces résultats je pense que dafay metti mais doo mën a am ay résultats donc loolu daal mooy li nga xam ne madame la ministre bëggoon naa ko wax di la encouragé waat bu baax di la félicité di félicité say collaborateurs di la ñaanal yàlla gën la may kattan boo mën a répondre li nga xamante ni moom mooy euh, li nga xam ne moom la le président de la république dénk